jug leen daalal ko lislaamaa ngi suux jug leen suuxat ko waaw xanaa métitlu ak naqarlu ci suñu biir xol di moment ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaloon na jullit responsabilité man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi man nag ma boole ñaar bi lisaanihi wa bi qalbihi ñaari laay boole macha allah di ko méttilu ci sama xol waaye tamit di ko dénoncé muy tooñ bi gën a rëy ci àdduna bi waa àdduna yëpp toog di seetaan muy lan eh, israéliens yi nga xam ne amuñu woon suuf ñu fexe ba dugg biir Palestine eh, ñu yaatal leen fa ñu dem ba taxaw ne ci suuf sa lañ bokk di ko xëccook ñoom ki waroon te diggante boobu ñu koy wax Nations Unies mu ne moom mooy mbootaayu xeet gi dafay xeex injustice dafay xeex ku ñuy néewal doole moom moo indi résolution 1948 déclaré Israël état comme mu bokkook Palestine suuf soosu muy ñaari état muy tooñ bi gën a rëy ci àdduna àdduna bi yëpp toog di seetaan moment boobu monde musulman ñu ngi fi te borom bi subhaanahu wa waxoon leen lii yëpp alerté woon nañ ñu ci alquran boo demee ci surtu anfal du ma dañ ci di ko wax mooy laay jooju wallazina kafaru baahdum awliyaau taf illaa tafaluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir ne woon na nañu booloo nekk benn ndax suñu noon yi jàkkaar lool kon tey suñu yoon jox jooju moo waral ah suñu mbokk palestiniens yi ñu leen di néewal doole di leen toroxal di rey seeni doom pandant des années defe naa ne diire na 73 ans ba léegi ñu ngi faat seeni doom te àdduna bi léegi ba léegi kenn waxu ci muy lu ñu metti di ko dénoncer di wax na képp kuy jullit war na ci am taxawaayu méttit lu ko ci xolam su fekkee foofu lay am waaye itam taxaw dénoncé ko ci àdduna bi yëpp ba ñëpp gis ko donc loolu mooy tooñ bi gën a rëy ci àdduna bi wax dëgg yàlla ñëpp di ko seetaan ba fi ñuy waxee ni euh, ci weeru koor fële ci xut ñu dem fa di amal seeni jaamu yàlla ñu fekk leen fa di leen boom di leen faagaagal te jullit ñi nag bu ñu rêvé ci suñu laurier ndax ñi dañu am objectif objectif bi mooy lan suñu paree xups ñu ngi jëm baytillaahil xaraam seen objectif la parce que lu tax ñoom dañu gëm euh, wàccuk yonti yàlla isaane foog ñu prépareel ko parce que si ñoom la war a wàcc loolu di question yoo xam ne nag borom xam-xam yu bëri débattre nañ ci euh, ñu bëri ñu ngi ciy gëstu kon bu ñu leen teelulee arrêté dinañ def pire que li ñuy def Palestine. parce que bu ñuy toroxal sa mbokku jullit nga toog di seetaan wax dëgg yàlla ki koy toroxal pexe yi mu am yëpp su paree ci yow la jubal kon ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel xam ne li dal suñu mbokk Palestine yi ñun lañ ko def ndax suuf soosu muy euh, masjidul aqsa ñun ñëpp ko bokk képp kuy jullit rek da ci war a retrouver sa bopp comme ni ni mu lay dalee fële ca baytillaahil xaram nga jug leen daalal ko lislaama ngi suux jugleen suuxat ko lislaama jugleen daalal ko lislaama ngi suux jugleen suuxat ko